mbokk yi incha allah kon mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey aaya bu njëkk ci suratul hashr mooy danaa ba ñu sante suñu boroom subhanahu wa taala di ko ñaan mu julli ca suñu yonent ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam suñu bisub tey bi moom mooy juróom ñaareelu fan wala juróom-ñetteelu fan ci weeru rajab sunu maam yi dañ ko tuddee ndeyu koor ci atum 1443 non muy dëppoog la nga xamee ne nii ah du noonu la muy le neuf ci la nga xam ne février ci deux mille vingt deux ñu ñaan suñu borom subhanahu wa taala mboolem loo xamee ne nii aw yiw la yu yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam doon béggalee ñuy daje ci néegub yàlla di jàng téere borom bi yal na yàlla subhanahu wa taala jagleel ñu ko ca boole ñoo ña nga xam ne ñoo koy déglu ak fu ñu mën a nekk ci kaw suuf ca fayul ñu yiwit ñi nga xam ne ñooy taxawu ba loolee mën a yegg ca ñoom na doon suñu télévision bi di Islam TV wala site xam sa diine ya wala yeneen site ak groupe yi nga xam ne daa aju ci jàkka ji yépp kon incha allah su dee Cheikh Ousmane pare na mu jëlal ñu suñu bind bu njëkk
سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلال لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب
بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنبرم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض sabbal na ñeel yàlla mooy ma ngay tudd sellug yàlla lépp lu nekk ci asamaan ya ak suuf wa huwa al azizu al hakim mooy ki not lépp ca kàttanam ga mooy ki xereñi lépp teg na ko fa mu war a tege huwa allazi axraja allazina kafaru min ahli al kitab moom mooy ka génne ña nga xam ne dañoo weddi ca jotoon téere ba min diyaarihim li awwalil xashr moo leen génne ca seen kër ya ca la nga xam ne mooy dajale génne bu jëkk ba mooy dàq bañ leen dàq dajale leen génne leen muy alxashr ma zanantum an yaxruju yéen jullit ñi musu leen a jort mukk ne yahudi yi daañ mas a génn madina wa zannu annahum maani'atuhum xusuunuhum min allah doonte na ñoom it jortoon nañu ne dana nekk di leen fegal fa nga xam ne mooy tata dañu làqu woon mooy forteresse bañ nekkoon ca la nga xam ne mooy bawoo ca yàlla fa ataahum allahu min haysu lam yahtasibu waaye yàlla dikkal leen ci foo xam ne foogewuñ ko fa woon wa qazafa fi qulubihim ru'b mu sànni ca seen xol yi tiitaange yuxribuuna buyuutahum bi aydihim ña nga doon màbb seen kër ya ci seen loxoy bopp wa aydil mu'minin ak loxoy ña gëm faatabiru ya ulil absar e waay xalaat leen ci lii yéen borom gisin yi walawla an kataba allahu alayhimul jalaa su dul woon ak yàlla daa dogaloon ci ñoom ne dañ leen di dàq génn leen la azabahum fi dunya kon doon na leen mbugal ci àdduna ji doonte ne walahum fi l axirati azabu naar dana leen ñeel ci àllaaxira lii di mbugal mu sawara mi ngi noonu mbokk julit saar bi suñu borom mu ngi ko ubbee li mu ubbee lenn ci saari alquran te mooy sabbal yàlla nee na lépp lu nekk ci kaw asamaan mi ngi sabbal yàlla sabbal googu ñaar la am na ñu koy sabbal bi lisaanil xaal ca melokaan yi ñu bindoo ak ñu koy sabbal ci seeni làmmiñ ca mbokk xatta yéeféer mi ngi sabbal yàlla boo ko xoolee gis ci moom kàttanu yàlla kan moo ko bind du yàlla fu mu jóge toqamaniyu jaar na nekk liir nekk ponkal nekk màggat dee na yàlla ko melal lépp lu nekk ci moom kon jëmmam jooju mi ngi sabbal yàlla doonte ne la mi ñoom sabbalu ko amma leneen lu dul nit ak jinne te yéeféer ya leneen lu mu mën a doon mi ngi sabbal yàlla picc yaag montagne yaag garab yaag gàncax yaag lépp doonte ne suñu borom mu ne laa tafqahuuna tasbihahum du ngeen mën a comprendre nuñ koy defee looloo tax ba yow julitit fexeel bay bàyyi xel sabbal yàlla te mooy nga xam ne yàlla mooy kenn ki amul moroom mooy ki man lépp mooy ki selli ki dara tewu ko jalla wa ala looloo tax léegi bi ngeen sëlmalee ci timis yéen ñépp wax ngeen subhanallah trente-trois fois léegi ngeen wax ko ci géey ñu ngi noonu borom boobu nag ne mooy borom kattan gi xereñe jullit da ngay gëm ne allah muy alxakim lu mu tëral rek noonu la comprendre nga ko wala comprendre loo ko lu mu atte noonu la comprendre nga wala comprendre loo borom bi nag subhanahu wa taala dañuy wax ni moom moo génne yahud ya ca madina ca njëlbeenu génn ga loolee mbokk li ko waraloon mooy suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam bi koy yàlla di yónni jamono boobi yahud yi bari jàngoon téere xamoon nañ ne jamono yónni yonent la te jàngoon nañ ci seeni téere ne yonent boobu madina lay mujj lu bari ci ñoom dem dëkk ji foofee mu amoon fa ñetti giir bani Qunayqa bani Nadir bani Xurayza fekkoon nañ fa ay giiri arab muy waa Aws ak waa Xasraj ñooñu nga xam ni ñoo jaayanteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te bay'atul aqaba ca Makka ne ko ñëwal Madina soo ñëwee dañ la aar ni ñuy aare suñu njaboot yonent bi gàddaay dem fekki leen bàyyi waa makka mushrikuun bokkaalekat yi dem fekk fa ahlul kitaab mu daal di yéwanoo ak ñoom ñu siññente ay pacte te mooy ñun ñi dëkk Madina nañu aar dëkk bi bu xeex amee ñun ñëppay ànd xeex ba problème amee képp ci ñun dimbali moroomam ñu siññente loolu ña jëkk a xotti loolu mooy bani Qaynuqa yonent bi génne leen ñii yàlla di wax fii tey mooy bani Nadir ñooñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa am ay giri arab yu ñëw ne ñun day tuub nañ dugg ci lislaam na yonent bi ne leen booleeg ndaw yu leen jàngal lislaam yonent bi tànn juróom-ñaar fukk te ndaw ña nga xame ni nii ñoo nekkoon Madina daadi leen boole ak ñoom ba ñu demee ba yegg seen dëkk ñoo ndar képpi leen fu ñu tudde bi Urmauna ñoom juróom-ñaar fukk yëpp ñu rey leen trahir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ka nga xam ne moo ci mucc di Amru ibnu Umayya daa deedeelu ba ñu jàpp ne rey nañ ñëpp bañ demee mu jóg bi mu jógee dem bi muy nibbisi mu dajeeg ñaar ca yenn arab yi mu foog ne ci ñi trahir yonent bi ca lañ bokk mu daal di leen di rey ndekete ñooñu ñoom ci beneen dëkk lañ bokkoon boo xam ne dañuy siñeente woon ak yonent bi pacte ñooñu topp su ko Madina daal di ne yonent bi sa waa ji moo rey suñu ñaar nit yonent bi naa wax ngeen dëgg de kon dañ koy defal diya diya bi mooy ku nekk téeméeri giléem lañ koy jote muy ñaari téeméeri giléem yonent bi alayhi salaam ne nañ dem suñu mbokk yahudiya ñu dimbali ñu ci waa Bani Nadir biñ ñëwee yonent bi ne leen ah dañoo am nattu de dañoo soxla ñaari téeméeri giléem lu ngeen ñu ci mën a dimbali ñu ne ko ah loolu koy de problème fii yonent bi toog ci benn wetu miir ñuy gise seen biir daa dina waaw occasion bi mel nii day duñ ko amati kan mooy jaar ci gannaaw miir bi jël benn roche dóor ci bopp bi mu dee rek ñu noppalu ci kawam sallallahu alayhi wa sallam te loolu suñu borom seedeel na ko yahudi kullama jaahum rasulun bi ma la tahwa anfusuhum fariqan kazzabu wa fariqan ah yaqtuluun kenn xamul ñaata yonent lañu rey bañ demee ba dogg ci loolu ba seen saay saay ba jóg dara koy gàddwoo ngi noonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla xamal ko mbir bi da ko jógal naka mu jóg ànd ak fekk mi nga ànd ak Abubakar ak Omar ak Ali ñu daal di jóg dem yonent bi woo seen kilifa yi ne leen waaw xam ngeen ne day lii ngeen defoon mooy da ngeen ma bëggoon a rey te seen kilifa gu mag ñoom waxoon ne leen yéen a gën a xam ki yonent yàlla la piège boon ko def yàlla dana ko ko xamal bañ demee ay lii wér ñu mujj nangu yonent bi ne leen baax na bi mu delloo Madina mu ne leen jóg waajal leen ne yéen dañu dañu trahir ñëw indi armée jullit ñi ñu ndar képp leen yahud yi toujours fu ñu daan nekk dañ daan nekk ci ay forteresse tate yoo xam ne nii kenn du gaaw a dugg ci ñoom yonent bi assiégé leen mooy toog wër leen ñaar fukki fan mënuñoo génn mënuñoo dugg gannaaw ba la ñëw ne yonent bi alayhi salaam waa léegi atteel ci ñun loo atte ñu na ñu nangu loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam daa di atte ne na ngeen génn madina du ngeen génne lu dul ku nekk la mën a yëpp ci gileem dong arme yi fi ngeen koy bay ngeen génn ngeen dem comme pexe amul la ca des mooy xeex ca la ñu génn dem loolu mbokk mooy xissa bi suñu borom wax ne moom moo génne ahlul kitaab ca madina muy muy benn loo ci mën a jàng yow julit yonent bi moo ki sahabam ñooy ñëw ñoo leen ndar kepp waaye yàlla moo féetewoo boppam génne ga looloo tax ba yow jullit yow élève bi nekk ci examen yo yow mi nekk ci tukki yow mi nekk politique yow mi nekk ci lu mu mën a doon ngañaay boo ca am xamal ni lii ci yàlla la jóge waaye jógewul ci yow suñu borom yàlla mooy borom kattan mooy nattoo ku ko neex moo tax mu ne maa leen génne ci njëlbeenu génne gi baleen yonent bi génne ñu jóge Madina dem Xaybar gannaaw ba Omar génne na leen Xaybar ca la ñu ñëw dëkki Sham fii ci Palestine nga xam ne ñu bëri seeni set ñoo fa nekk ba tey moom la borom bi di nettali mu ne moo leen génne ci seen kër ya yéen jullit ñi jàpp leen woon mukk ni yahud yi daañ mës a génn Madina bàyyi fi seeni kër ñoom it tëju gañ tëju woon ci seen biir montagne ya jàpp ñu woon mukk ne am na kenn ku leen fee mën a génne waaye yàlla dikke leen fu ñu ko foogawul woon sama yonent ba attaqué wu leen da leen a ndar képp rek mënuñoo dem mënuñoo dikk suñu borom yàlla dimbilee yonentam la nga xam ne mooy rob te mooy tiitaange bokk na lu yàlla dimbilee yonenti yàlla bi bépp noon bu mu war a dajeel dootoo nelaweti guddi ndax tiitaange looloo tax ba ñoom ba ñuy génn yahud ya ngir bañ julit ñi dëkk seeni kër ñoom ñoo doon màbb seen kër yi bopp kër yañ defaroon ñoo ko doon màbbal seen bopp borom bi nag ne yéen julit ñi xalaat leen ci lii suñu borom yàlla nag mu ne gis nga ñii yàlla dogal ci ñoom ne dañ leen war a génne madina bu dul woon ak loolu mbugal mu tar dana leen ñeel ci àdduna ji te mbugal moomi suñu demee ba ay at ca kanam ña fa desoon di bani Qurayza ñooñee da ngay gis ne ñoom mbugal bu tar la yàlla teg ci ñoom te ñoom it ñoo trahir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom bi mu ne fariqan taqtuluuna wa taasiruuna fariqa te mooy bañi gazwatul ahzab borom bi nag daa di ne ab yéeféer même bu muccee ci mbugalu àdduna it li wér moom alaxira moom mbugalu sawara moo leen fay xaar loolu it muy wañe ne mbokk yéeféer mën naa mbëru féccéerlu bàkkaar bu ne mu def ko yàlla muccal ko ci àdduna te loolu it suñu borom ne lawla an kataba allah bu dul woon ak yàlla daa dogal farata julitit loolu ngay gëm mooy lan yusibana illa ma kataba allahu lana amul lenn luy dal ci yow wala dal ci keneen lu dul yàlla dogal li yàlla dogalul kenn mënu la koo teg kenn mënu koo teg keneen ku dul yow amma la yàlla dogal atte it kenn mënu koo fonk jalla wa ala mi ngi noonu kon Cheikh Ousmane
ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من ليلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب barakallahu fiikum suñu borom jalla wa ala mu ne zalika bi annahum shaaqu allah wa rasulah ñoom de waay dañoo doon ñoo xam ne dañoo juuyoog yàlla ak yonentam wa man yushaaqi llaha koo xam ne dafa juuyoog yàlla day fa inna allaha shadidul iqaab yàlla day ko taral la ci nu muy toppe mbugal jaam ya ka yeyoo ma qataatu min lii na lépp loo xam ne dagg ngeen ko ci ay tàndarma yu mag aw taraktumuha qaimatan ala usuliha wala ngeen bàyyi ko muy aji taxaw ca la nga xam ne mooy dattam ya fi bi fa bi iznillah loolu lépp yéen a ngi ko defee ci ndigalu yàlla wala yuxziyal fasiqin ngir it yàlla toroxal ña nga xamee ni nii dañoo génnuk topp wa ma afa allahu ala rasulihi minhum lépp loo xam ne yàlla delloo si na ko ci yonent bi mu jóge ca ñoom fa ma awjaftum alayhi min xaylin wala rikaab loolu day dawalu leen ca mooy génnewu leen ci yóbbu benn fas wala génn giléem gu ñuy war walakin allaha yusallitu rusulahu ala man yasha waaye yàlla muy xiirtal yonentam ci kaw ku ko neex wallahu ala kulli shay'in qadir yàlla day moo am kattan ci lépp lu mën a doon ma afaa allahu ala rasulihi min ahli alqura lépp loo xam ne yàlla delloo si na ko te yonentam ba mu jóge ca ñooñu dëkk ña fa lillahi wa li rasul dana ñeel yàlla ak yonenta ba wali zil quruba ak jege ñaalay yonenta ba wal yataama wal masakin ak jirim ya ak miskin ya wabni sabil ak ña nga xam ne dañoo tumuranke ci yoon kay laa yakunu duulatan bayna al agniya minkum ngiree mu mañ a mu bañ a doon rek alal juy wër diggante ñi woom le ci yéen wa ma aataakum rasulu fa xuzuhu e waaye lépp loo xam ne yonent bi dikk na leen ko jël leen ko wa ma nahaakum anhu fantahu lépp lum leen tere bàyyi leen ko wattaqullah ca ngeen ragal yàlla inna allaha shadidul iqaab yàlla ko tarn la ci nu muy mbugale mi ngi noonu kon mbokk bu ñu xoolee suñu borom yàlla mu ni yii fiiri ahlul kitaab yi day sawara moo leen di xaar li ko waral mooy dañoo juuyoog yàlla ak yonent bi te ku juuyoog yàlla ak yonent bi mbugal mu tar mi ngi nekk di la xaar te yàlla ku tar nu muy mbugale la loolu nag mbokk dañuy gis ne kon dootul tënku ci ahlul kitaab kese te képp koo xam ne da nga wuuteeg yonent yàlla gannaaw ba la njubug yonent ba dikkali suñu borom mu ne wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi ghayra sabili almu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira képp ku wuuteeg yonent bi suñu borom mu ne loolu dina la tabbal sawara looloo tax mbokk ñi dañoo wuuteeg yonent bi ci pas-pas waaye it moytul wuuteeg yonent bi ci jëfin képp kuy julli te julli ga defoo ko naka yonent bi doon santaane yàlla du ko nangu aj ga yàlla du ko nangu lépp lu mën a doon suñu borom yàlla dafa ñoo jox yonent bi alayhi salaam muy royukaay bi nga xam ne ca lay nangoo ay jëf ku jëf-jëf boo xam ne dëppoowul ak sunnaam yàlla du la ko nangul doonte ni ne yonent bi alayhi salaam bim ndar keppee yahuud yi ca Madina wa Bani Nadir yahud yi toog nañu lu jege vingt jours di ko résister ba mujj yonent bi alayhi salaam ne leen ñii niñ bëggee alal tant que seen toole tàndarma yi mi ngi nekk fi wër leen duñ ko fi bàyyi mu jox sahaaba yi ndigal ñu commencé di dagg tàndarma yi di daaneel dagg tàndarma yi di daaneel loolee tax na ñu gën a découragé ba dem gannaaw ba la ñu naan waaw kii nee na yonent yàlla la yàlla bëggul yàq nan lay yàq-yàq gi suñu borom ne lépp lu ngeen dagg ci tàndarma wala ngeen bàyyi ko sama ndigal la ami te loolu di règle boo xam ne jullit yépp a ko war a xam mbokk yàlla lu mu joxe ndigal loolee lu ñaaw amatu ca doomu aadama rey ko loolee lu garaaw la ba nga xamee ne nii yonent bi alayhi salaam nee na ki xëyoon bombardé àdduna ba mu jeex takk takk takk kooku day moo gën ki xëy rey benn julit waaw léegi nag julit boobee tey jii su doon moom daa dem rey rey rey julit ndax duñ ko rey dañ koy rey lu tax ñu koy rey bi iznillah yàlla joxe ndigal ñu rey ko waaw julit boobee tey bu doon mas naa sëy ba pare dem njaaloo ndax duñ ko rey ah kay dañ koy rey lu tax ñu koy rey mooy bi iznillah yàlla joxe ndigal boobi looloo tax ba mbokk yàlla joxe ndigal ci commerce téere bi ma jënd ko mille francs dem jaaye deux mille yàlla ci joxe ndigal yàlla araamal riba ahallallahu bay wa harrama riba ma lebal Cheikh Ousmane mille francs ne ko bu weer wi dee nga fay mi mille cent francs cent francs yooyu riba la kee moom am bénéfice mille francs loolu dagan la gaa yi ne waaw innamal bayu mislu riba njaay ak jënd moog riba yam rek suñu borom mu ne déedéet ahallal harrama lahul riba ahalla lahul bay'a wa harrama riba lii yàlla ci joxe ndigal looloo tax ba jaamu yàlla bi day xool lan la ndigalu yàlla ak lu ndigalu yàlla nekkul jaamu yàlla gi lu mu rafet rafet ci say bët ndax yàlla joxe na ci ndigal loolu mooy mbir bi mbokk yàlla kenn du ko jaamoo suñu bànneexu bakkan borom bi mu ne am lahum shurakaa'u shara'u lahum min ad-diini maa lam maa lam ya ya'zan bihi Allah ndax léegi dañoo am ñeneen ñu leen di tëralal diine joo xam ne nii dañuy kay jaamoo yàlla lu yàlla joxewul ndigal day leen mbokk julit julit lépp luñ la fekk nga kay jaamoo yàlla war ngaa mën a am tegtal ne lii la yonent bi jàngale mu jóge ci borom bi subhanahu wa taala kon fa bi iznillah borom boobu nag wëlbati ko waat daa dina ah yéen sahaaba yi nag yéen xeexu leen kenn jamu leen kenn reyu leen yàlla wàcce tiitaanga ci yéeféer yi ñu dem bàyyi fi seeni alal alal joojee nag nañu xam ne suñu borom yàlla mi am kàttan ci lépp lépp lu mu jëlee ci yéeféer yi te xeexu leen ca dañ koy delloo trésor public dañ koy delloo trésor public yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam bokk na lu ko yàlla nattoo mooy zakkaat yi ñoom amuñu droit lekk ko moom ak famille kon nañ ci jël jox ci yonent bi ak bani hashim ndax yeneen zakkaat yi jullit yeneen yi ñoo ko moom ñoom amuñu droit lekk ko gannaaw ba it ñii nga xam ne mooy jirimi lislaam ca aka bëri woon jamono yonent bi dañ daan dem xeex cent daanu cinq cent daanu mi ngi noonu ñoo ñëpp bàyyi ay njaboot borom bi ne nañu jël ñooñu di ci entretenir jirim yooyee miskin yi ñàkk ak la nga xam ne mooy ñu jóge ci yeneen gox ñëw Madina ci amuñu dara loolu kon nañ ko def trésor public yonent bi géré ko di ci taxawu ñooñu ngir alal ji it bañ a doon luy wër diggante borom alal yi kese te loolu it moo tax yàlla tëral zakat mbokk mooy yàlla dafa def ci société bi ñoo xam ne mënuñu fàggu alal bu dee ne alal nañ koy jëlante mooy fàggu rek am na ñoo xam ne mënuñu ko moo tax suñu borom tëral zakat ne yéen ñi am alal dee leen dee leen ji fuqaraaw yi ngir alal ji bañ a yem ci benn catégorie mi ngi noonu moom la ñu tuddee circulation des biens nga xam ne bokk na liy gën a doxal économie gis ngeen. suñu borom nag wax ne yonent yàlla bi lu mu leen indil jël leen lu mu leen tere bàyyi leen mbokk lii benn règle la ci aaya yi nga xam ne mboole mi borom xam-xam yi wax suñu dañ koy wax lu yonent bi indi jël leen lu mu leen tere bàyyi leen jaamu yàlla mooy topp ndigalu yàlla ci li nga comprendre ak li nga comprendreul loolee mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax jullit moom mooy le vrai vrai vrai militaire ñu ngi noonu li yàlla tëral loolu ngay tëral sans comprendre te loolu la ñuy yebee armée mi ngi noonu ordre yu jóge ci chef bi yow da nga koy exécuter leneen looy wax na nga doo ko wax waaye il faut exécuter amoo droit di laaj lii lu tax yal na yàlla yërëm suñu mbokk ba Aboubacar Samb mooy ki nga xam ne bari woon na tafsir nekk fii di laaj ay question léeg-léeg question yu reetaanlu xam ngeen gaañu ne weer yi passé yal na yàlla jéggal ko yërëm ko li nga noonu yàlla dafa dogaloon mu nekk marine mais nee na bis mës naa toog ak seen amiral bi mu am benn waay bu mu woo di ko jox ay ordre waa ji taxaw naan ko oui chef oui chef oui chef bi mu paree bay de mu ne koy mais viens viens viens moi je t'entends dire oui chef oui est-ce que tu as le droit de dire non mu ne ko non chef yaa ngi dégg mooy oui sax amoo droit di ko wax parce que boo naan oui rek kon am nga droit wax non mu ne ko lu tax ngay wax oui ca mooy ñoom bu ñu la joxee ordre foofu masalan chef bi bu la bu la nee génnal jàkka ji da ngay taxaw ne wëy chef da nga ne génnal jàkka ji mooy wax ji da nga koy répété ci kanamam bala ngaa dem ëllëg naan ko déggu moon li nga wax bépp ordre da nga koy répété ca amoo droit bañ ko ngir lan mbokk ngir salaire buñ lay fay amma yow julit sa borom yàlla dalaa def nga nekk jaamub yàlla yonent yàlla bi li mu wax def ko comprendre nga comprendre ko yonent yàlla bi li mu tere bàyyil comprendre comprendre loo ko lii nag mooy réglu l'islam bi nga xam ne ñu bëri dañ koo réere bokkoon na ca benn soxna sa baax su ñëw umu yanqub yonent bi abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu dafa toog ne yéen jigéen ñi yàlla araamal na yokk seen karaw yi yàlla araamal na jamutuñ yàlla araam na xar seen bëñ yi yàlla araamal na araamal na umu yanqub ñoo ne ko waaw ibn mas'ud yow yow yow yaa ngi nekk naan yàlla araamal na yàlla araamal na mu ne ko yàlla araamal na mu ne xar fan la ko yàlla wax ci alquran alquran baqara ba naasi lépp xam naa ko fan la ci yàlla wax lii araam na mooy jigéen ñi démb de abdullah ibnu masud na ko waaw jàngoo aaya ba yàlla di wax naan wa ma aataakum rasul fa xuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu yonent bi lu mu leen digal def def leen lu mu leen tere bàyyi leen mu ne ko ah kay mu ne ko maa ngi lay seedeel ne sama ñaari nopp yi ñoo toog ma toog ci kanamu yonent bi yonent bi na yàlla rëbb na jigéen ñi yokk seen karaw rëbb na ñay jamutuñ rëbb na rëbb na rëbb na loolee mbokk mi ngi noonu su ko defee da ngay gis fan la yàlla wax xeesal ci alquran fu yàlla wax cigarette ci alquran fu yàlla wax nangam ci alquran déedéet mbokk julit alquran dafa nekk base sunna yonent bi duubal na ko sunna boobu moom mooy leeral téere bi yàlla bi wa ma aataakum rasul fa xuduhu wa ma nahaakum anhu fantahu juyoog yonent bi day jur mbugal yonent bi mu ne yonent bi suñu borom mu ne fal yaxzari lazina yuxaalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim na moyti ñuy juyoog yonent bi fitna dal leen même bu dee ne ca jaamu yàlla ga yaa ngi koy def forme ba sax moytu ko imaamu malik rahimahullah benn waay ñëw na ca jàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lambaayoo ak armalam julli ñaari raaka ba pare daal di génn na labbayk allahuma hajjan yonent bi imam mari na ko ah sëñ bi yow fii ngay armale yonent bi day bi fële ci biiru ali la alima zul xalifa mu ne ko mais lan mooy différence fii ak zul xalifa mu ne ko ah différence bi day mooy safaanoog sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga noonu bokkoon na ka ko jiitu di ibnu musayyab mi nga xam ne nii nekkoon na imam ca jumaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayid ibnu musayyab ah ba mu gisee benn waay ñu noddal fajar ba pare benn caamin jóg rek dóor ñaari rakk dóoraat ñaar dóoraat ñaar ibnu musayyab ñëw na ko sëñ bi suñu noddalee fajar ba pare ñaari rakk rek la ñu am droit julli mu ne ko waaw yàlla dana mu mbugal ci julli mu ne ko déedéet waaye yàlla mën na laa mbugal ci safaanoog sunna yaa ngi dégg su ko defee kon mbokk julit julit du xeeb bul yokk bul wàññi fexeel xam sunna tënku ci sunna safaanoog sunna day jur mbugal yàlla na yàlla tënkuñu ci sunna waane Cheikh Ousmane للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون بارك الله فيكم كم سنبرهم جل وعلا مني للفقراء المهاجرين loolee it dana ñeel aji ñàkk ñee nga xam ne dañoo gàddaayoon allazina uxriju min diyaarihim wa amwaalihim ñooñu nga xam ne dañ leen a génne seen kër ya ak seen alal ya yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwaana ñu nekk di sàkku ngëneel yu bawoo ci yàlla ak ngërëmam wa yansuruuna allaha wa rasuula ñu nekk di dimbali yàlla ak yonentam ulaika humu sadiquun ñooñee day ñooy ña nga xamee ni nii ñooy ña dëggu wallazina tabawwa'u daara wal iman waaye ña nga xam ne day ñoom ñoo jëkkoon a dëkkee dale ca kër ga ak la nga xam ne mooy ngëm ga min qablihim jiitu muhaajiruuna yooyee yuhibbuuna man haajara ilayhim ñoom day ña ngiy bëgg lool ña nga xam ne dañoo gàdday jëm ci ñoom wala yajiduuna fi sudurihim xaajatan mimma uutu te duñu yëg ci seen xol ya seen dënn ya benn aajo ca la nga xam ne yonent bi jox na leen ko ñoom jot nañ ko wa yusiruuna ala anfusihim bal dañuy gënale ci seen bakkan walaw kaana bihim xasaasa doonte ne nekkoon na ci ñoom ak aajo woo wa man yuuqa shux wa man yuuqa shuxa nafsihi koo xam ne nii day dañ koo fegal lii di nayug bakkanam fa ulaika humul muflihun ñooñee day ñooy ñi nga xam ne ñooy ñe texe mi ngi noonu mbokk dañuy gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lam jëlee woon ca bani nadir suñu borom wax na ko nam koy jëfandikoo bokk na ci ña ca nekkoon priorité mooy waa makka yi nga xam ne ñoo gàddaa yoon dem madina mujj nekk ñu ñàkk lan moo leen ko teg dañ leen a dàq génn leen seen kër ya nangu seen alal ya ñu jëm madina ngir sakku ngëneelu yàlla ak ngërëmal yàlla te loolu itamit mooy la nga xam ne mooy yéene yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi ñuy jàng jàngal ne innamal amalu bi niyaat mboolem jëf yi nit ñi jëf yàlla du leen see du leen attee ci jëmmi jëf ji waaye da leen di attee ci jëf ji ak yéene bi loolu moo tax yonent bi daan joxe misaal ci gàddaay nee na koo xam ne nii da ngay gàddaay ngiree sakku ji ngërëmal yàlla dimbali ji yonent yàlla fa hijratuhu ila allahi wa rasuli waaye koo xam ne ba ngay gàddaay da ngay sakku ji jigéen jooy takki wala adduna jooy amoo ami fa hijratuhu ila ma haajara ilayhi sa gàddaay yépp day jëm ci loolu loolu it mbokk mooy règle base ci mboolemi jaamu yàlla jàkka ji ñu nekk suñu borom mu ne da nga fay fekk ñoo xam ne nii ñoo gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taraahum rukkaan sujjadan yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwana julit heure bu jógee jëm jàkka ja lan lay sàkko ji mooy ngëneel yu bawoo ci yàlla te mooy yàlla baal koy bakkaaram yëkkati ay darajaam bindal ko ay tuyaabaam waaye wa ridwaana ngiree yàlla subhanahu wa taala gërëm ko te bokk nañu yàlla gën a gërëm da nga xam ne fu ñu déggee hayya ala salaa lañu doon def ñu bàyyi ko dem ci néegub yàlla ba baram bi mu ne ñooñu di muhaajiriin yooyee nga xam ne ñoo ñëw di dimbali yàlla di dimbali dine yàlla ji ñii day ñoo ñu dëggu te mbokk julit da ngay xool diggante Makka ak Madina quatre cent kilomètres la quatre cent kilomètres Makka léegi-léeg dana dem ba cinquante degré ci tàngaay yi la ci ëpp ay montagne la ñu ëppoon ña gàddaay si te jëm ca yonent bi alayhi salaam seen tànk la ñu doxee mi ngi noonu bokkoon na ci Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu seen tànk la ñu doxee quatre cent kilomètres loolee borom bi mu ne dëgg-dëgg ñii ñooy ñi nga xam ne ñoo ñu dëggu loolee ngir la nga xam ne nii diine màggoon na ci seen biir xol malheureusement suñu ndaw yi tey nga xam ne dañu màggal sport seen biir xol bokk na ci reportage yi ñu doon def démb benn xale bu jigéen mu ne man Kédougou laa jóge ñëw naa fii maa ngi fanaan ci tali bi boulevard de la République jour tel fokk ma jàkkaarloog moom jaral na ma lu ne nekk ci àdduna lu ne jaral na ma ko lu waral loolu mbokk julit kooku suuxat nañ lii nga xam ne mooy football boobu ci xolam ba moo ko gënal leneen lu mu mën a doon daañu yegg foo xam ne ba doon jam ay paaka sax duñ ko yëkk ndax bëggeel ga nga xam ne moom lañ bëgg loolu sahabatul kiramin moo tax biñ daan daggu xuré di dagg montagne yi di xuus ah dex yi ngiree dimbali ji yàlla ak yonent bi alei salatu wasalaam ngëm nga nekkoon seen biir xol moo tax ñu daan def loo xam ne da nga naan lii nan la ko nit mane mi ngi noonu yal na yàlla sellal ngëm suñu biir xol ulaayka humu siddiquun waaye it jaaraama waa madina ñooñu nga xam ne ñoo dalal yonenti yàlla bi dalal ay ganam ba gan gu mësan ñëw dañ koy leg-leg lu tëri kii ne maa koy yóbbu kii ne maa koy yóbbu suñu borom subhanahu wa taala tagg leen ne day ñooñu day ñooy ña nga xam ne ñooy ña texe biñ ñëwee dañoo séddoog muhaajiruuna yi seen alal ya ba demoon nañ ba na sax dañuy séddoog ñoom seen soxna yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam tere leen loolu gis nañu ne aaye bii nga xam ne nii moom la ñu tiim nii bokkoon na ñu ne li tax mu wàcc yonent bi alayhi salaam benn waaye dafa ñëw ci guddi mu ne waaw ah gan gi kuy dem fanaanoo ko waay benn waay jóg ne bëreet ne man yow mi yàlla yónni bi mu àndeeg moom ñëw ba ci kër gi woo soxna si ah kii de ganug yonent bi la lan la ñu am lu ñu mën a reere mu ne ko ah tey reer amul ci kër gi de lii fi desoo nakas néew de laa bëggoon ñu jox ko xale yi waaye reer amul ci kër gi loolu mbokk mooy sahabatul kiram nañu doon dundee yàlla da leen a tànnoon ñu wër yonent bi alayhi salaam yàlla nattoo leen seen lépp di diine yàlla nattoo leen seen lépp di diine la ëpp ci ñoom yàlla xañ leen adduna mi ngi noonu la ëpp ci ñoom yàlla xañ leen adduna ñuy toog duñu am lu ñu lekk mu ne ko kon xam nga luy pexe jëlal ndab bi nga teg ko jëlal lekk bépp féetalu ko benn boor fi gan gi féete su ñu demee ba toog rek ci nga tegal ñu ko ci biir lëndëm gi xam ne riwaay yi wax sax dana fexeel rek ba mënoon fël sax lampe bi mu fay ah mu ne sëñ bi acci bisimilah ñu ubbi bool bi sëñ càmm moom mi ngi roof rek di dank di lekk ñoom ñaar ñu ji ñoom ñuy dugal seen loxo di génne di dugal seen loxo di génne ba gan gi moom lekk ba suur ñoog seeni doom keroog ñu fande bañ xëyee suba waa ji ñëw mu ne ko ah sa jëfi biig ji de yàlla wàcc na ci aaya bu ñuy tari ba ila yumi din mi ngi doon ca moo dine ne yusiruna ala anfusihim dañuy gënale seen bakkan même bu dee ne aajo woo nañu te loolu nekkal règle yow ndawal julit ba yóbbaale sa àdduna doy na rek ci doomu aadama bi yow nga bañ a yéene nit ñi ci sa alal waaye xamal ne la gën ci doomu aadama ngay fexe ba yow doon koo xam ne da ngay jëriñ doomu aadama yi même bu dee la ngeen leen di jëriñe da nga koy soxlawoo bañ a doon koo xam ne melokaanu juif ngay yor soo demeen juif yi tubaab yi avant ñu leen di ragal ba ñëmatuñu wax ci ñoom bu ñu leen daan caricaturer juif dañ ko daan wutal ay griffe bu ñu leen daan wane nii lañ daan def mooy yahut xamul lu dul lu jëm ci boppam yow julit bul mel noonu jullit toujours del xalaat li ngay jox ñeneen ñi xamee ne loolu rek ngam sa alal wallahi sa alal la nga ca am la nga ca moom mooy li nga joxe ci yàlla tax leneen li nga fi denc moom yàlla xam nu muy mujjee mi ngi noonu su ko defee kon borom bi nee na ñoom du ñu yëg ci seen xol gëñale ga yonent bi alayhi salaam jël ngañaay yi di jox muhaajiruun bal ñoom la ñu am seen alalu bopp sax dañ koo jël séddoo ko ak ñi nga xam ne muy muhaajiriina ya donte ne soxla woon nañ ko suñu borom daa ji ne xam leen ni ka nga xam ne fexe na ba yàlla muccal ko ci nayu bakkanam ashuha mooy buxlu boo xam ne nii day dem ba farata ya sax nga daal di koy bañ a jooxe suñu borom mu ne kooku mooy koy texe ba bokk na lu ñuy nettali ci Saad ibn Abi Waqas bi nga xam ne moom lañ tuddee suñu jàkka ji ànd na ak lenn ci ay sahaba muy wër kaaba gi mu naan rabbi qinni shuha nafsi yàlla yàlla nag ma musal sama nayu bakkan gaa yi na ko waaw ñun lii rek ñu dégg ngay ñaan mu ne ndax xam ngeen lu gën loolu suñu borom yàlla nee ne ki yàlla musal ba nayoo yow day yaay ka texe yàlla na yàlla musal ñu ci ak nay yeneen bi da ko doon ñaan yàlla musal ko allahumma inni a'udhu bika min al-hamm wala hazan wala ajza wala kasal wala buxlu buxlu mooy nay yàlla yàlla nag ma musal ci nay wa man yabxal fa innama yabxulu ala nafsi ndax ki nay ci boppam lay lay lay dellu amma ki tabi jël la ma aw kas néew séddoo ko ak jaami yàlla yi lépp la joxe sa bopp ngay dencal looloo tax suñu borom ne ki yàlla musal ba nayoo yow day yaay ki nga xamee ñu ne yaay ki texe doonte ne ne mbokk suñuy wax ak tabe tamit lañ ca jublu mooy joxe fa neex yàlla joxe fa neex yàlla waaye tabe goo xam ne da ngay joxe fa neexul yàlla loolu maa ngi bokk minal mubazirin ixwaana shayatin ñoo jël alal di dugal fi neexul yàlla waaye juri da nga war a xool ba xam lii de fu neex yàlla la nga jël sa alal def fa te xam ne da ngay denc mi ngi noonu yal na yàlla fegal ñu suñu ayu bakkan yal na yàlla fegal ñu ca la nga xam ne ni mooy ak nay jàpp naa kon incha allah mën nañu doyloo loolu jazakumullahu cheikh ousmane jazakumullahu ajmain wa barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ndax xale bu am 15 ans mën na jiite la ñuy jëkk a laaj mooy ndax boo amee 15 ans majeur na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu doon wutaloon ay règle majeur ba ca jiitu mooy tëdd na gént am na lu génn ci moom wala ñu xool karaw yi naqam karaw yee génn na banu Qurayza jooñu ma leen doon wax nga xam ne ñu trahiroon yonent bi alayhi salaam yawma al ahzab suñu borom subhanahu wa taala dafa joxoon yonent bi ndigal képp kuy majeur nañ ko rey képp kuy xale ñu jàpp ko jaam saxaaba yi bu ñu mësaan gis xale dañuy tekk tubéy ji bu ñu gisee karaw gi karaw ci naqam ñoo xam ne majeur na ñu rey ko bu ñu ci gisul ñu rey ko loolu moo tax 15 ans day varier selon les nations ko demoon tey lu mel ne ay soudanais yeeg yooyu da nga ci gis soo xam ne 15 ans day mel ne 25 ans sénégalais kon ci gàttal bu dee daal xale bi moom majeur na. su boobaa borom xam-xam yépp dëppoo nañ ne mën na jiite naafila wuute nañ nag ndax mën na jiite farata bu doon lu mel ne mazhab Malik dañ ne déedéet ku majeuragul du jiite farata ndax ki majeuragul day naafila te ñoom kiy julli farata du topp ci gannaaw kuy naafila soo demoon ci yeneen mazahib nag ñoom nangu nañu kiy naafila jiite kuy def farata kon ñoom dañ naan waaw ba nga xamee ne daal bu doon dëkk mel ne suñu dëkk yee moom comme xale bi 15 ans la am. li gën mooy ñu bàyyi ba gis ku ko gën a mage avant ñu koy jox mu jiite farata balaa am ci mbooloo mi ñoo xam ne dañ jàpp ne julli gi baaxul wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ala kulli xaal kon mbokk yi bëri waaw amuñu beneen question it ñu fàttali rek ne li ngeen di barkeeloo ci jàkka bi mille francs bi par mois am na mbokk yuy xaar pour laaj ko ñu ngi ñaan yàlla yàlla subhanahu wa taala nangul ñu ngëm-ngëm defoon ci muhajirin ak ansar yal na yàlla def ko ci ñun yal nañu yàlla boole ci ñetteelu groupe ba nga xam ne dañ leen di topp di leen jéggulul te incha allah àllarba bii di ñëw ci ñoom la ñuy tàmbale yàlla boole ñu ak ñoom te firdawsil aala wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain